takwa masa tidur kanan itu kayak takwa Wahai jenis ikhtilaf itu kita. Semua yang saya ingin kita mengucap Allah apa terjadi. Tapi Allah nama yang biasanya itu jam jam berapa lot nanti? Tapi Allah nama yang jam berapa lot nanti? Ini apa nama yang? Ini sudah jam lot nanti. waaw moom moom jaam yi ci am te ku ne mën a gën a yërëmal sa bopp kon borom li nga xam ne moom moom jaam yi ci kenn ku nekk moo la gën a yërëm ci sa bopp jàll ne yaa taqulaan sataaxum jàll ne taqulaan sataaxum taqulaan sataaxum taqulaan sataaxum gaa yooyu nag gaa yooyu nag ku ñu ko ci ñu deful dara yaa ko def sa bopp waaye yàlla duggoo kenn yaa ko fekk sa bopp waaye yàlla moom duggoo kenn ak ak tay bi ak ak tay bi ak am sa tànkul ak man sa tànkul kenn du boole kenn du leen boole tële ñoom ñaar kenn du leen boole tële ñoom ñaar kon li mën ci xaqe sa tay bi nañ ko def kon li mën ci xaqe sa tay bi nañ ko def bu tasaaroo. te tudd ñu ko yàlla. te tudd ñu ko yàlla. nga ne ñooy gën a naqari xet ñëpp. nga ne ñooy gën a naqari xet ñëpp. ñu leen tudd yàlla. ñu leen tudd yàlla. leen tudd yàlla. leen tudd yàlla. te sant yàlla. te sant yàlla. ci jéggalu yàlla. ci jéggalu yàlla. te ñaan yàlla. te ñaan yàlla. tudd yàlla ji mooy li ñu def li ñu yëpp ci tudd yàlla la bokk. nee na tudd yàlla ji. li ñu doon def lépp ci tudd yàlla la bokk. sant yàlla gën a. sant yàlla gën a. sutura naa ak sutura ak sutura ak sutura yi la ca teg. suñu yàlla gën a sant ka war a tege. a a jafe-jafe la. sant la jafe-jafe la. moom la digaloon yonente la mu ne Imalaw Aala Daawoolu. mu ne Imalaw Aala Daawoolu. la ca nee na te sukkur. li gën a màgg ci jaamu yàlla la bokk. li gën a màgg ci jaamu yàlla la bokk. ndax soo ko gis kufru muy safaanam. ndax soo ko gis rek kufru mooy safaanam. kut kuróol yi wala tak kuróol yi. nee ndax dafa wax ne kut kuróol yi wala tak kuróol yi. mis na mis na mis na mis na moom safara la ci teg. mais nag moom maa yëg suuf dina fi yoonal safara moo ca tege. muy fekk dina ay ci benn mu leen ko faratu moo ca teg. mais nag sax dina ci benn bu leen ko faratu moo ca tege. ndax koo koy laata ñu am suñu ay léegi ndax xamunan duma la yore ba di mu ko neena mo ca tagge way def ko la ca tagge way def ko la ca tagge mo ko su ko gëna ma xane am dara di am dara am ko am na ko di ak jaamu yalla ko ni ko ci ci rek xarat neena ne ma di ko ci rek xarat ko ci rek la ca tagge way ko ci rek la ca tagge su ko ñe ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يمتعن عليكم ومن يتق الله يجعل له غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ان الله يغفر الذنوب. ان الله يغفر الذنوب جميعا. ان الله غفور رحيم. ان الله هو غفور رحيم. ويقبل ربكم فإن يمسكم متى إلى أجل سلم. ويقبل ربكم ثم تقول لي ثم تقول متى حنم متى حنم. إلى أجل سلم. إلى أجل سلم. ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله. فأخرجكم وتولوا إلى المسجد Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يمددكم بأموال مبينة ñaari ifaat tudd nañ sant yàlla tudd yàlla sant yàlla jégalu yàlla ñaan yàlla yent yi ma waxoon ñaan yàlla sëñ Tuba wax nañu lu waay ab jaam am ci lu baax yàllaa ko ko may lu mu amut moo ko ko ñaanut لا مقصد لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن أصحاب النار من شر المسير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين dañaa ne ma dimbali ma ci. maa ko naan yàlla dimbali ma ci. jàmm yàlla bu rafet. jàmm yàlla bu rafet. ñu ngi leen di xéwale ñi nga xam ne. dimbali ma ci xéwale ñi nga xam ne. soxlawu ko. soxlawu ko. say tab bu dul jeex la. say tab bu dul jeex la. ko yàlla a màgg ñaan ko. kenn jaamoo lu gën a màgg ñaan ko. ñu ko ñaan ñu sotti ñu ko teewale ñu. ñoo ngi ñaan ñu na baati na tam. waaye rafet na dul suñuy bés yi. dul suñuy suñuy bés. dul suñuy bés. naa ne yaa ayyuhal-lazina aamanu إنه صدق لا مستطعت صدق لا مستطعت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وسائل yëpp nag. wasaayil yëpp nag. wasaayil yi. wasa wasaayil yëpp nag. jëm ci yàlla yëpp nag. jëm ci yàlla yëpp nag. teg na ko ci Serigne Touba. teg na ko ci Serigne Touba. teg nañ ko ci Serigne Touba. teg nañ ko ci Serigne Touba. ndigalam yi mu digaloon. ndigalam yi mu digaloon. ci jumaa ji. ci jumaa ji. ak liggéey yi nga xam ne kilifa yi ak liggéeyam bi nga xam ne sama kilifa yi ñoo ko doon def ci yokk ko ñoo ngi ko doon def ci yokk ko ñoo ngi yëgal na liggéey bu jëkk bi maa ngi leen yëgal na liggéey bu jëkk bi bu njëkk a dajale bu njëkk a dajale liggéey nañ ko ba tuuta ci def liggéeyoon nañ ko ba tuuta ci def beneen bi nga xam ne dajale woon nañ ko beneen bi nga xam ne dajale woon nañ ko itam maa ngi leen teg ko maa ngi leen teg ko dañu bëgg bu bii ñu ko ñu mu diir ci alarba jooju. nañu fas yéene tàmbali ko alarba tey jii mu jullee bu dellusee. ñu tàmbali ko ci àggale bi ci liggéey bi. ñu tàmbali ko fas yéene àggale bi ci liggéey bi. ñun ñu ko ànd ak yéen bokk ko ñun yàlla na ko yàlla na ko ànd ak yéen. ànd ak yéen te bokk ko. te sàkk ci ngërëm Sëriñ Tuubaa te am ko ci. te sàkk ci ngërëm Sëriñ Tuubaa te fas yéene am. te am mm. ko ci. Mm. ñëpp taal seen loxo. ñëpp taal seen loxo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يؤمن ثابت الفقرية فقد من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من الشياطين وأعوذ بك رب النصر السلام عليكم يا الله بكل شيء لا يعلم كل شيء ولا يقصد بأمر الله شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيكم لا يستطيعون أمين أنت آخر الأمر رحمتك من كل ما يقرأون أستغفر لي بإذن الله فإن لا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين

فأعبد يتحرك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ak yàlla nag bi nga xamante ne nii jaam bu ne lott na def. su ñu fekkoon am waree. loolu kon am waree. ñu lott jaam lott na def. kon ñun jaam lott na def. waaw su ma ko waxee ñoom ñoom jaam yi am ku ne mën a gën a yërëm la sa bopp. suñu borom mi nga xam ne mooy naan jaam yi ci kenn ku nekk moo la gën a yërëm ci sa bopp. mu dellu ne yaa taxulaa am sa tànk. ba taxulaa am sa tànk. yaa yooyu nag. yaa yooyu nag. ku ku deful dara. ku deful dara. yaa ko def sa bopp waaye yàlla duggoo kenn. yaa ko def sa bopp waaye yàlla moom duggoo kenn. après ba koy fii. après ba koy fii. am am na sa temps. ak ma sa temps. kenn du boole kenn du leen boole ko lu ñoom ñaar. kenn du leen boole ko lu ñoom ñaar. kon nag ñu mën ci xasee ko tey jii nañ ko def. kon ñu mën ci xasee ko tey jii nañ ko def. mais biir yoon bi wax ne amul ngeen mbooloo julli ñu ngi daje. ak biir yoon bi sax baax na dama amul ngeen mbooloo julli ñu ngi daje. ba tasaaroo. ba tasaaroo. te tudd ñu ko yàlla. ko yàlla. dara ñooy gën a naqare xet ñëpp. dara ñooy gën a naqare xet ñëpp. ñu tudd yàlla. ñu tudd yàlla. ñu tudd yàlla. ñu tudd yàlla. te sant yàlla. te sant yàlla. yëglu yàlla. yëglu yàlla. te ñaan yàlla. te ñaan yàlla. tudd yàlla gi mooy ñu ñu yëpp ci tudd yàlla la bokk. tudd yàlla gi. ñu ñu doon def lépp ci tudd yàlla la bokk. sant yàlla gi nag. sant yàlla gi nag. ci kuréel ak ci kuréel ak ci kuréel nii la ca tey. kuréel daal kon kuréel bunt yàlla bu ne sant ko war a tëjee. bunt yàlla bu ne sant yàlla moo ko war a tëjee. sant yàlla moom lu jafe-jafe la. sant yàlla moom nee na lu jafe-jafe la. moom la digaloon yonente ya. moom la digaloon yonente ya. mu ngi maloo aala daawooda. mu ne maloo aala daawooda. sukkuroon la jëfe. sukkuroon la jëfe. jafe si tax na mooy waxal yi ñu daal di sukkoon. jafe si nga xam na ko tax na mu teg ne waxal yi ñu daal di sukkoon. te sukuru. nee na te sukuru. ci gën a màgg ci jaamu yàlla la bokk. ci gën a màgg ci jaamu yàlla la bokk. ndax koo ko gis kufru mooy safaanam. ndax koo ko gis rek.

juróom la ca tey. way def juróom la ca tey. ma def suuf si gën a moo xam ne mooy safaanu kufru. nee na moo tax mooy kufru gën a mooy safaanu kufru. doole yi kufru am. doole yi kufru am. kufru am na ko ci jaamu yàlla. kufru am na ko ci ak jaamu yàlla. ñu ngi daan juróom ñu ma tuddee fukki rek xar rek. nee na nee ma tuddee fukki rek xar rek. ñu ko fi rek la ca tey. way kufru rek la ca tey. kufru gën a. kufru kufru mooy safaanu. kufru mooy safaan ba. dinañ yàlla sant yàlla bi. sant yàlla bi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ومن يمسهم على الدين ثم يسلم ويخاف الله جل خطر رحمه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ان لا يغفر ذنوب الجميع. ان لا يغفر ذنوب الجميع. ان الغفور الرحيم. انك هو الغفور الرحيم. ويغفر لكم ثم تعين نفسكم متى فلا يجوز الصوم. ويغفر لكم ثم تعين ثم متى حنم متى حنم. لا يجوز الصوم. لا يجوز الصوم. ويجوز كل ذي قدر صلى الله عليه وسلم. فدخلوا فغدوا النبي صلى مدينة فتقبل الغدو الليل ولا إله إلا الله وصحبه وسلم أنا ولا إله إلا الله وصحبه وسلم وصحبه وسلم بالمؤمن بالرومة بالمؤمن والمؤمنة بالمؤمن والمؤمنة بالمؤمن والمؤمنة فاتقوا ربكم وطعن قطع رأيكم عن ذكر رأيكم وتقرأ المؤمن وطعن قطع عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويجعل لكم أنهارا. ñi nga xam ne jéggul yàlla. ñi nga xam ne jéggul yàlla. yàlla moom ku jéggul mu jéggal la. ku ko jéggul yàlla moom ku ko jéggul mu jéggal la. waaye li may tegtal jéggal gi. ñu am différence bi. ñu ngi sant yàlla. ñu sant yàlla. sant yàlla jéggul yàlla ñaan yàlla. yàlla ak tam yàlla ak jëkkëru yàlla ak ñaan yàlla. yàlla bi mu waxoon. yàlla bi mu waxoon. ñaan yàlla. ñaan yàlla. sëñ Tuba wax nañu. sëñ Tuba wax na nag. lu waay ab jaam am. lu waay lu waay lu ab jaam am. ci lu baax. ci lu baax. yàllaa ko ko may. yàllaa ko ko may. lu mu amul. lu mu amul. moo ko ko ñaan. moo ko ko ñaan. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرفنا وما اعظمنا وما ظهر منا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القتل ومن فتنة المسيح الدجال ومن أكاذيب الرسل المسيح السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بيان مجرمين في nangu nangu yàlla ñu bëri ñu. jaamu yàlla bu rafet. jaamu yàlla bu rafet. ñun ñooy jëfandikoo ñi nga xam ne. ñu bëri ñu xeewale ñi nga xam ne. soxlawu ko soxlawu ko keetab bu dul jeex la keetab bu dul jeex la yaa ngi ko yaa ngi ko jaamu ko jamu jaamu ko lu gën a màgg nga nga am ko kenn jaamu wu ko lu gën a màgg nga am ko ñu ko ñaan fekk ñu ko teewale ñu waaw mooy ñaan ñu fekk ñu ko teewale ñu waaw rek sama baax na ko sama baax na ko suñu gis suñu suñu suñu gis suñu gis wax naa ne yaa ngi ko taxawal xaqatu ko yi wax naa ne yaa وتقلام قطعتم وتقلام قطعتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وسائلكم وسائل وسائلكم جل جلاله جل جلاله سيدنا سيدنا الله سيدنا سيدنا الله سيدنا سيدنا الله سيدنا سيدنا الله digaloon yi ñu digaloon. digaloon yi digaloon yi ñu digaloon. ci jumaa ji. ci jumaa ji. ak yëpp yi nga xam ne sama kilifa yi. ak liggéey yi nga xam ne sama kilifa yi. ndax ñoo ko ñoo ko ñoo ko doon def yokk ko. ñoo ko doon def yokk ko. ñoom ñu yëgal ne suñu nit ñi di jëkk dugg. maa ngi leen yëgal ne da ngay bul jëkk dugg. suñu jëkk a tàggale. suñu jëkk a tàggale. waaye si biir dana ko mën a àggale bu soobee yàlla. waaye si biir dana ko mën a àggale bu soobee yàlla. beneen bi nga xam ne dajale amoon ko it. beneen bi nga xam ne dajale woon nañ ko itam. maa ngi leen di teg ko. maa ngi leen di teg ko. dañoo bëgg mën ci àgg. dañoo bëgg bu nit ñi àgg rek. ñu teg caa julli. ñu teg caa julli. ñu ngi ci téye nag am na ko alal bi ci ñu julli. bu julli alal bi ñuy gis nañu ko gën a tàmbali foofu xaaral béy ko jiw bi dee bu dee si dee. ñu tàmbali ko ci àggale yëpp si liggéey bi. ñu tàmbali ko nga gën a àggale yëpp si liggéey bi. ñun ñu ko ànd ak yéen bokk te ñu ànd ko ànd ko ànd ak yéen. ànd ak yéen te bokk ko. ci tak di ngeen mën sëñ Tuubaa te am ko ci da tax ci ngeen mën ko sëñ Tuubaa te fekk yéen a am am ko ñu taal sëñ Tuubaa tam ñu taal sëñ Tuubaa ñu ma ko ñu ñu ci taal ci ñu ñu daal ci ko ci ñu tax da ci taal ñu ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده الاختيار له الملك بشر ولا يقصد بامر الله ان على قبل الله قوه الا بالله العلي العظيم ولا يقصد ان وجعل الامر مستقيم من كل ما يقرون حتى يقولوا لي بالعفاء ولا ترك عن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين باذن الله وفي الجاهليه سبحان عزه ومن جاهل في قتله فعلى وجهه سبحان عزه فالبيعوا في الجامعه والحياه وما فكرت ان يحضروا مثل هذا المناطق فلا يستاذن بكتاب الاسلام بسم الله فوق العصر وإذا قرأ الله مفتوح الجنة وبالمكان لا يستطيع أن يرحمه أنا ربك

ñu ko jàng jàng yàlla suñu borom loolu rek tax ñu bind ngir ñu jàng ko moom bind ngir ñu jàng ko rek moo tax mu jëglu suñu borom kat su ko fàttee ñu maanaam ak lewe sama tax te suñu borom kat su ko fàttee yërmandeem ak lewe sama tax kum fàttali boppam saxel doo doo ci di nekkati ci dara lu dul moom suñu borom jublu ko waaye boo geesoo kon mu la nga gees waaye boo geesoo kat mu la nga gees ndax dafa lu ndax dafa lutul doy na wal walis leneen doy na walis leneen nan ko fas yéene jaamu nan ko fas yéene jaamu te di ko tudd te di ko sant te di ko ñaan te di ko tudd te di ko sant te di ko ñaan sikkurulaay sikkurulaay waaw ba avant dama avant dama mu sikkur sikkurulaay avant dama mu sikkur شكري فهو أكبر فهو أكبر مثل ما كان يكثر مثل ما كان يكثر قد كنت ذلك بلا إسرائيل مثل إبراهيم مثالي قد قلت ذلك بلا إسرائيل ولا أبالي بسم الإنكار ولا أبالي بسم الإنكار من سألني فليجعل وكل من سألني فليجعل قبل ولا تجادل أهل الكتاب قبل ولا تجادل أهل الكتاب ولا شكر الله أكبر ولا شكر الله أكبر إنك لا يسمع ما تسمعون wala ñëpp lu ma ma as na ma. loolu moo jëkk wala tijaadi loolu. loolu moo jëkk wala tijaadi loolu. moo tax mu ne ku ma ko laaj am naa tontu jëkk mu jëkk wala tijaadi loolu. moo tax mu ne ku ma ko laaj am naa tontu te li jëkk wala tijaadi loolu. mooy wala sikkiru laay ak baru. mooy wala sikkiru laay ak baru. kon moom fii sama tudd tudd yàlla sama bopp. suñ seenee jàmm kon nag nañu tudd yàlla suñu borom dafa géeree jàmm tere ko sant tere ko sant tere ko njot tere ko njot ndax xaafir sën bi xaafir sën bi ndax xaafir sën bi moo jëkk wax aadili taw bi moo jëkk wax aadili taw bi moo makk na ñu rafet njot bokk na ci li rafetal njot man soo jaara ko njot ni ko fàttali dama ko fàttali di ko fàttali noo ngi sant kon ngi yàlla di ko fàttali ko di ko fàttali Terima kasih telah menonton! te am lu mu waxoon loo xam ne maa ngi koy fàttali. te am lu mu waxoon loo xam ne maa ngi koy fàttali. mu ne seytaane kat naagu na. mu ne seytaane kat naagu na. yàlla yàlla gàtt leen dara ci sëñ bi. gàtt leen dara ci sëñ bi. waaye maa ngi koy doxee ci. waaye maa ngi koy doxee ci. ñu ngi ñaata maa ngi koy doxee ci da koy yëkkati. maa ngi koy doxee ci da koy yëkkati. ndax sëñ bi moom li muy digle kenn du ko am ci lu mu moom. ndax sëñ bi moom li ndigle kenn da koo mën pour mooma. buñ ko mën a ñëw si wut buñ ko mën a ñëw si wut si. kon ñun ñu ko def ñun dara moom moom dong moom. mu mënul dara kon moom moom dong moom lañ. ñu jàpp ci moom li ñuy wax yëpp. nañ jàpp ci moom li ñuy wax yëpp. buñ ko mën a dugg ci moom. buñ ko mën a duñ ko dugg duñ dikk ci moom. moom bokk na ci bunte seytaane jaare ci yàq. bokk na ci bunte seytaane jaare ci yàq. mooy nag lii ma gàttal waaye rek foofu day mel ni day rafet ba fekk lu ci loolu la ci jublu. di jéem a gàttal waaye foofu day mel ni ko rafetal te fekk loolu la ci jublu. ci ndigal. kon nañ jéem a fàttali ci ndigal. di topp ndigal. di topp ndigal. te bañ a topp xel. te bañ a topp xel. xel moom mën naa war addina jëpp. xel moom mën naa war addina jëpp. dem ci doo ji ji. dem ci doo ji ji. dem ci doo garab yi. wala dem ci garab yi. waaye waaye tànk moom bu ñëwee. waaye tànk moom bu jógee. na fekk ci yoon wa rek. na fekk ci yoon wa rek. loolu koy tax a mën a àgg ba mu jëm. looloo koy tax a mën a àgg ba mu jëm. ñaan yàlla dimbali bu baax a baax. ñaan naa yàlla dimbali bu baax a baax. jaamu yàlla. jaamu yàlla. ak topp ndigal sëñ Touba. ak topp ndigal sëñ Touba. ñaan mu jëggal nu. te ñaan mu jëggal nu. suñu aad yëpp ak xatiyaat yëpp. suñu xëyaat yëpp ak xatiyaat yëpp. ما قدرنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أخرنا ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم السلام عليكم ñu ngi leen di nuyu te di leen balu ak. ñoo ngi leen di nuyu te di leen balu ak. ñu ngi leen sant tey bale ak. di leen sant tey bale ak. ñoo ngi fàttali li ñu fi indi. ñoo ngi fàttali li ñu fi indi. moom fi indi moo ñu fi bàyyi. moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi. moo ñu fi dajale. moo ñu fi dajale. yàlla sunu borom. yàlla sunu borom. nan jaamu yàlla sunu borom. nan jaamu yàlla sunu borom. te sant yàlla sunu borom. te sant yàlla sunu borom. te ñaan yàlla sunu borom. te ñaan yàlla sunu borom. jégalu yàlla sunu borom. jégalu yàlla sunu borom. te bul bul jeexal sax lu may ko ku ko laaj. ku dul tabbu ji tabbu jeex la boo xam ne soxla lu dul ku ko laaj. donc ñaan lan tànnal mu defal ko ko. na nga ñaan lan tànnal mu defal nu ko. jé jéemee na ci lan la tànnal. te jéemee na ci lan la tànnal. ñu ngi yàlla bu baax a baax. ñoo ngi yàlla bu baax a baax. boole bi mu boole Serigne Touba. ci maa ngi ñaan mu saxal na ci ndigalam. maa ngi ñaan mu saxal na ci ndigalam. tegal na ay tereem. te tegal na ay tereem. ñu ngi sant bu baax di nuyu. ñu ngi leen di sant bu baax di leen nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. man di nuyu. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi hôpital yi ñu ngi fi daje yéen bokki taalibe yi ñu ngi fi daje yëpp. yéen ñi bokk jullit yëpp ci mën ak yéen ñi bokk jullit yëpp ak fuñ mën a ne. ñu ngi siyaare te leen balu ak. maa ngi leen di siyaare te leen balu ak. tey bale ak. tey bale ak. tey fàttali sama bopp. tey fàttali sama bopp. di leen fàttali. di leen li ñu fi fi. li ñu bàyyi na fi. yàlla sunu borom. ñu yàlla sunu borom. wala takunu kallati nusila fa ansihum anfusahum. wala takunu kallati nusila noo ngi ñaan nag noo ngi sant itam noo ngi hmm. yàlla sunu borom tuub jëm ci yàlla sunu borom waxtu yi waxtoom la lool mu diggé woon ko wuute mukk du mu jéggal mu jéggal ñaan nag mu jéggal la noo ñaan nag mu jéggal maa ngi sàkk it mu def tawasulu ci ci tuub gi. maa ngi sàkk it mu def tawasulu ci tuub gi. tawasulu gi nag moo di. tawasulu gi nag moo di. di sàkk sarax. di sàkk sarax. sarax soo xam ne tawasulu ci ci tuub rek mooy suñu borom rek lañ ciy jublu. sarax soo xam ne tawasulu tuubal suñu borom rek lañ ciy jublu. sarax si nag bu ko waaye bu ci xeeb waaye xeeb dana bu ci waaye yéem dara. sarax si nag bu ci waaye xeeb dara bu ci waaye yéem dara. suñ suñ ko bàyyi rek xam nañ seen ñi ko gën ñi ko gën a ndax te ñu ko dajale it nañ seet ñi si gën a lot. ñu jottali leen ak jaamu yàlla. te ñu jottali leen ak jaamu yàlla. ñu ko jëm ci ñoom. ñu bàq ko jëmee ci ñoom. ñoo ngi ñaan nag ñoo ci tawfeex. ñoo ngi ñaan itam suñu borom na ci tawfeex. jé jéggulu bi jéggulu bi. ak ci jéggulu bi. mu nangul nu ko. mu nangul nu ko. xéewal mi bari yi nga xam ne dafa digle ko laaj it. xéewal bari yi nga xam ne dafa digle ku ko laaj it. noo ko laaj. noo laaj. xéwalam yi. a xéwalam yi. ak ngëneelam yi. maa ngi xamal bokk jullit yépp nag ne. maa ngi yokk bokk lislaam gi. maa ngi yokk bokk lislaam gi. képp ku ma bokkal lislaam. képp ku ma bokkal lislaam. maa ngi yokk bokk bi ci yow. maa ngi yokk bokk bi ci yow. li may wax sama bopp laay jublu laay njëkkee. li may wax nag sama bopp laay njëkkee. waaye nag ñun ñëpp nag noo ko bokk. waaye nag ñun ñëpp nag noo ko bokk. fàttaliku suñu borom daal. fàttaliku suñu borom daal. bëgg naa mu def ko lool. bëgg naa mu def ko lool. tawassul ci daal di laaj dañ koy laaj moom daf ci tawassul daf ci tawassul tuubal ko. laaj dañ koy laaj moom. laaj dañ koy laaj itam. ak tuubal bi ak tuubal bi. nu tawassuloo jëm ci moom. nu tawassuloo jëm ci moom. tu tu tu sarax sàkk sarax yooyu. muy sàkk sarax yooyu. ku ko mën daal bëgg na nga def ko kenn loo ca man rawatina ci taalibe murid yi nag. rawatina nag ci taalibe murid yi nag. maa ngi leen di digal bu wóor a wóor. maa ngi leen di digal yéen bu wóor a wóor. te it bëgg ñu jàng alxuraan boole ci tawassul yi. te it bëgg ñu jàng alxuraan boole ko ci tawassul yi. waaye man ci ay kaamil na ko def. lu waaye man ci ay kaamil na ko def. def ko tawassulu. def ko tawassulu. tuubal suñu borom. di tuubal suñu borom. te jéggulu ko. am na lu sëñ nag. am na lu sëñ Tuubaa waxal nag. doomu aadama ju mu ne doomu aadama yàlla yàlla taxale na ko ñaari biir yàlla taxale na ko ak ñaari biir biir biiru jëmmam ji biirub jëmmam ji ak biir bàmmeelam ak biir bàmmeelam biiru jëmmam ji biirub jëmmam ji bu mu ko itteel li mu ko itteel bu mu ko itteel bu mu ko itteel kii ko boole moom waroon na ko lu mu ca def kii ko boole moom waroon na ko lu mu ca def bàmmeelam bàmmeelam ni itteel nay itteel ndax mu ko deful du ko fa fekk ndax lu mu ko deful du ko fa fekk loolu nag loolu nag ngay dem adduna ma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 fàttali di ko fàttali ku ma bokkal lislaam bi. di ko fàttali ku ma bokkal lislaam bi. ma seere ne ma diine lislaam yi ci laa ne. ma seere ne diine lislaam yi ci laa ne. du ma ko booleeg dara. te du ma ko booleeg dara. lu dul moom nag. lu dul moom nag. xaw ma ca defar xaw ma ca defar xaw ma ca yàq. doonu ma ca dara. doonu ma ca dara. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. nuyu. maa ngi leen di nuyu. yéen bokki taalibe yi daje fii. te da leen siyaare. te nuyu bokki jullit yëpp. tey nuyu bokki jullit yëpp. fu ñu fi mën a nekk. tey jokk bokk gi. tey jokk bokk gi. bokk jullit gi. fàttali li nga xam ne moo ñu fi indi woon bàyyi na fi. te di leen fàttali li nga xam ne moo ñu fi indi woon te bàyyi na fi. yàlla sunu borom mi nu bind. muy yàlla sunu borom mi nu bind. te bind nu ngir nu jaamu ko. te bind nu ngir nu jaamu ko. فذكر فإن ذكري تنفع المؤمنين فذكر فإن ذكري تنفع المؤمنين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعموني ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم jaamu gi ñu gi ñu bind ngir ñu jaamu ko bind gi ñu bind ngir ñu jaamu ko digal ñu jaamu ko digal ñu jaamu ko boole na ci waxatu ak waxiiru boole فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى الخامس حديث حفت الجنة بالمكاره حفت الجنة بالمكاره حفت الجنة بالمكاره حفت النار بالشهوات حفت النار بالشهوات loolu yàlla digal. loolu yàlla digal. ak li mu tere. ak li mu tere. boole na ci ne àjjana. boole na ci ne àjjana. wërale nañ ko yi ñuy sib yi bakkan di sib. wërale nañ ko yi ñuy sib yi bakkan di sib. bu ko defee ci ci jaareem da nga da nga tàggoo da nga def sa sa bakkan sib. ban bala jaay kenn dem da nga def sa bakkan sib. sawara yi nañ ko wërale saxawaatu yi. sawara yi nañ ko wërale saxawaatu ya. mooy bànneexu bakkan yi. mooy bànneexu bakkan ya. kon nag tàggoo saxawaat yi dana ci tax a mucc. kon nag tàggoo saxawaat yi dana ci tax a mucc. di ko teet dana ci tax a mucc. di ko teet dana ci tax a mucc. ginnaaw loolu itam. ginnaaw loolu itam. makaari yi bu tax ñu tuddee ko makaari yi yi wër àjjana. makaari yi tax ñu tuddee ko makaari yi wër àjjana. moo di bakkan. moo di bakkan. mooy Sëriñ Tuubaa dafa wax ni. ngir sëñ Tuubaa dafa wax ne. mu ne am na nafsanaa majbuula. mu ne am na nafsanaa majbuula. ala ibaayi taatin maqbuula. ala ibaayi taatin maqbuula. bakkan. bakkan. yàlla mi ko bind da ko mooñaale. yàlla mi ko bind da ko mooñaale. sib jaamu sib ak jaamu yàlla bu ñu bu ñu nangu. sib ak jaamu yàlla bu ñu nangu. ay nit a ngay yóoxu di tëb di dal. ay nit a ngay yóoxu di tëb di dal. di bëre. di bëre. di wax ay laxu. di wax ay neen. di wax ay laxu ay neen. te fekk ñaar raakaar képp. loolu gën koo sedd. te fekk ñaari rakkaat yëpp moo gën a yomb loolu gën koo sedd. laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasuulullaah ñaari baat ñi képp moo gën a yomb lépp gën koo woyof. laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasuulullaah ñaari baat ñi képp moo gën a yomb lépp gën koo woyof. te teewul bakkan nga jëm ci lee di fi weesu yii. te teewul te teewul bakkan nga jëm ci lee di fi weesu yii. li doon doon ay coono. li ñuy doon doon ay coono. ak ñàkk njëriñ. ak ñàkk njëriñ. ci la bakkan gën a jëm li li yomb lool tey njëriñ. ci la bakkan gën a jëm ci li yomb lool tey njëriñ. loolu mooy mooy loolu moo xam ne. te ginnaaw bu ginnaaw booy teg na ci bu góorgóorloo moom bakkan. te ginnaaw bay teg na ci ne bu góorgóorloo moom bakkan. moom ji moom jëf ci sa bakkan ba jëf ba jëf loolu ñu digle itam. bu góorgóorloo ci sa bakkan ba jëf loolu ñu digle itam. saabatu fil aafaati xatta afsatal. saabatu fil aafaati xatta afsatal. من إذا ما كسبت عاملة ثبته بالآفات حتى أفسدت ثم إذا سلم منها أظهرته فيعين به ثابتا فحبكت moo ne bu góorgóorloo ba jëf itam. moo ne bu góorgóorloo ba jëf itam. afaat yi mën na caa jaxasoo. afaat yi na caa jaxasoo. ba yàq ko. ba yàq ko. bokk na ci riyaaw. bokk na ci riyaaw. riyaaw mooy njëstal. riyaaw ba mucc ci njëstal itam. góorgóorlu ba ñu mucc ci njëstal itam. Mm-hmm. xut bu mën na caa dugg. xut bu mën la ngay def baax na mudd mooy gis sa bopp ci la ngay def defe na jëf yi baax na defe na jëfe nga ko ni ko yàlla digle woon defe na jëfe nga ko ni ko yàlla digle woon réew amu ci itam réew amu ci réew amu ci gis nga gis loolee mën naa andi xoj bu gis nga gis loolee mën naa andi xoj bu faxab bi tat moo ci tegu faxab bi tat moo ci tegu réew af sadat réew af sadat ujum fa faxab bi tat faxab bi tat amaaluhum amaaluhum ah, kon nag na ngeen góorgóorlu ci def li yàlla digle kon nag na ngeen góorgóorlu ci def li yàlla digle te ci rafet njort te ci rafet njort dafa njort ci ci ci ko digal moromam. naka njort ci ko digal moromam. bu la ko bindee doo sañ a bañ. bu la ko bindee doo sañ a doo sañ a bañ. mu digal la ko. mu digal la ko. def nga koy def. def nga koy def. nga di ci seenu ak pay. nga di ci seenu ak pay. nga di ci seenu ak pay. nga di ci seenu ak pay. mooy rafet njort nga. mooy rafet njort nga. waaye ñu rafet njort bañ a jëf. waaye rafet njort ci bañ a jëf. te defe naa daan la fay. te defe naa daan la fay. waxuñu loolu. waxuñu loolu. dañoo bëgg kuy jëf la mu dañu digal te di rafet njort dafa am loo xam ne nii ak xisa boo xam ne bii. dafa am loo xam ne nii ak xisa boo xam ne bii. ci ci kanam sëriñ bi lañ ko defee woon. ci kanam sëriñ bi lañ mu digle nu aw sàcc rum ne na àgg ci bis bi. dafa am aw sàcc rum digle wu ne na yàgg ci bis bi. na àgg ci bis bi. na àgg julli jot mu dem di julli ji. waxtu julli jot mu dem di julli ji. xëy na ba mu leen ne topp nañ ci julli nañ daa def xëy na ba mu leen di julli ji. topp nañ ci moom nañ di julli ji nañ daan def. na ba mu leen rombee di julli ji topp nañ ci moom di julli ji daan def. moom moo ñu ko rombalee nit. man moo ñu ko rombalee nit. mel na ni kon dañoo julli ji ba ñëw. mel na ni kon dañoo julli ji ba ñëw. ñaari yi nga xam ne doomi soxna ñu naar yi. naari gànnaar yi nga xam ne ñooy doomi soxna ñu naar yi. ay taalibeem yoo xam ne dafa taxawoon ak ñoom. ay taalibeem yoo xam ne dafa taxawoon ak ñoom. am ku ci boole ñooñee fekk fekk yàkkamti ñu yàkkamti maa ngi tax na julli jiwuñu. am ku ci boole ñooñee fekk yàkkamti gi ñu yàkkamti maa moo tax julli jiwuñu. dañoo bëgg a nekk ba noppi soo ko julli. xëy na dañoo bëgg a nekk ba noppi soo ko julli. ndigal yi moom bañ a wees waxtu ñu leen waxan. ndigal yi moom bañ a wees di waxtu ñu leen waxan. naar ba nag xam loolee nag. naar ba nag xam loolee nag. di leen boole sëriñ bi. di leen boole sëriñ bi. moom tolloo ak ñoom ban toolam ñoom. cheikh cheikh. mu ne cheikh cheikh. joxe joxe joxe bu féetee nit ñi. joxe bu féetee nit ñi. maa salakakum fi saqar. nee maa salakakum fi saqar. sëñ bi ne ko foo wéy ñun lil musallina. sëriñ bi ne ko foo wéy ñun lil musallina. kon nag. kon nag. jaam bi ñu ngi ne diggante yaari yaari yi ko seq. jaam bi ñu ngi ne ci diggante yaari yi ko seq. sëñ bi jàjj nañu julliwut. sëñ bi jàjj nañu julliwut. ne leen dem leen tàbbi li ngeen julli woon ci biir julli ji. ne leen dem leen tàbbi li defan ci biir julli ji. te sa te ko. naar bi jàjj na ko. naar bi jàjj na ko. ndax nee ko fooy leen mu salli na. ndax nee ko fooy leen mu salli na. yaa ngi yéen a kum seq. yaa ngi yéen war nga ne ñoog tey tey tey tey xalaat sa bopp. war nga ne ñoog xalaat ñu ne xalaat sa faa juru fi. lu ñu ne xalaat sa faa juru ki tey foofu la ne. tey mel ni foofu la ne. bu rëccee daal ci lee bu rëccee daal ci bu rëccee daal ci lii كان لا يتاويل تفسير القرآن نصر كان لا يتاويل تفسير القرآن نصر نصر نصر نصر نصر يخلع يخلع يخلع من فوين للمسلمين من فوين للمسلمين ما ترككم في سقرة ما ترككم في سقرة يجعلكم ثق يجعلكم ثق ولن يفرق بينهم ولن يفرق بينهم ma ñaan yàlla boole na jaam yi mu nangu seenu jaam. ma ngi ñaan yàlla boole na ci jaam yi mu nangu seenu jaam. wërsëg ak sàkku ci ngëneelam yi. ak sàkku ci ngëneelam yi. ngëneel yi nga xam ne moo ko moom te da koy joxe. ngëneel yi nga xam ne moo ko moom te da koy joxe. su ko laaj rek la bëgg. def ko ko laaj rek la bëgg. noonu koy laaj. noonu ko koy laaj. mooy nañu ci def daaw am sikir wa sukri. mooy. te boole nañu ci daaw am sikir wa sukri. te boole nañu ci daaw am sikir wa sukri. te boole nañu ci di ko di ko jéggalu. te boole nañu ci di ko jéggalu. te di ko laaj. te di ko laaj. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyu mbokki jullit yëpp. nuyu nuyu mbokki jullit yëpp. ndokkeel ci bis bi. di leen ndokkeel ci bis bi. di leen siyaare. te di leen siyaare. di leen balu àq. te di leen balu àq. tey bale àq. tey bale àq. moom fàttali mbokki jullit yëpp xam ne fàttali yëpp nga xam ne moom indi moom indi bàyyi noo ngi fàttali suñu bokk jullit yépp li nga xam ne moo nu fi indi te bàyyi nu fi. mooy yàlla sunu borom. mooy yàlla sunu borom. moom koy moom koy tuubal te di ko jégalu. te di ko jégalu. te di ñaan ndimbal. te di ko ñaan ndimbal. ala ala asi nafsi amaarati ko jégalu. te te di ko ñaan mu taw feexal nu. te di ko ñaan mu taw feexal nu. ci defal nu mu tànnal. te لم نتعلم لم tànnal lam لم digal ar لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ان اتقوا الله لقد اوحي اليك لقد اوحي اليك والذين من من قبلك والا الذين من قبلك والا الذين من قبلك لئن اشركت فإن أشركت ليحبطن عملك ويكون من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد. وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. حق تقيته حق تقيته فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. إنما لكل امرئ ما نرى وإنما sama sama dénku bopp boo xam ne maa bokk yi yëpp noo ko bokk. sama dénku bopp la boo xam ne maa bokk jullit yëpp noo ko bokk. jagleel sama bokki taalibe yi murid yi nag. man di jagleel sama bokki taalibe yi murid yi. di jagleel sama bokki taalibe yi murid yi nag. fàttali. fàttali. lu jëm ci sëñ Touba. fàttali lu jëm ci sëñ Touba. xat yi yoosudu xat yi man yuridu tarbiya. yoosudu xat yi man yuridu tarbiya. wa man yuridu rabbi yi yuridu tarxiya. wa man yuridu rabbi yi di tarxiya. إلى تواليه يقود الله إلى تواليه يقود الله أسرى لا إله إلا الله أسرى لا إله إلا الله حفظت ما سنت عن الدفاتر حفظت ما سنت عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتري فلا تكن عن خدمتي بفاتر بفاتر loolu si yeesal yoonu murid yi ñoo ngi leen di fàttali loolu muy yeesal yoonu murid yi ak di fàttali li nga xam ne teew te xam nañ ko ci si mujj ak di fàttali li nga xam ne ñi ko xamoon ci mujj yi ñi ko xamoon ci mujj yi ku ko mas a jox sa doom ku ko mas a jox sa doom boo demee nga yóbbu nga nga jàngal ko te nga te yar ko te liggéeyloo ko boo demee nga jàngal ko te yar ko te liggéeyloo ko maa ngi woote nag ci sama daara yi maa ngi woote loolu nag ci sama daara yi fii ma sañ ci xel koom fii ma sañ ci xel koom mm, donte li yëwoon ko it donte la yëwoon ko noo ngi barkeelu ci waxam jooju donte la ci wax jooju yi di ko fàttali murid yëpp di ko fàttali murid yëpp di leen ci

وإيران ذلك طويرها نشأت عن رأس رب أعوذ بك من وسوسة الشياطين وأعوذ بك أن بسم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني مكيب تبيع ساعة براق البراق براق صغير أخت من جميعهم إنك لا تضع الحق ñu fàttali sama mbokk taal yi wut yëpp nag jëkk ci sama bopp fàttali yi ñu sëñ Tuba yi mu digaloon ci ci weer yi weer yi nga xamante ne benn benn fan ci li ñu gis gante ne fukk yaa juróom ñett ci alxames ma xam na ne yàlla gën a cee sama borom ab liggéey bu bu bu boo xam ne ay la mu sàkk ci moom ci ay dara yu ak ca màkkaama daga seen borom teg ci ci nit ga ci ay jaamu yàlla ak yenn xam ak kii kii bis boobu ci la jëmee këram ci jëlaf mu ci ndar wuti ñoom ji bi bis boobee moom na la wala jaay ko mosul boo xam lam ko ci taban bis bu leen bu diisee ci leen fa dana yees natt dana yees diisaa diisaa diisaa boo xam ne bii mooy raw ba ko jukkal yéen juróomi at ak ñu ci ji ak yéen juróomi at yéen si gànnaar juróomi at ñu nekk ak jaraxam ak weer bi am nekk njëriñ yëpp fi mu wuti ca rek noonu lay mel ba ñu jamono njëriñ bi am bis lépp ñu si ci seere ak natt yooyu di ko fii noonu ko lay fii noonu fii noonu noonu ko lay fii noonu di ko fa fii tegoo suñu borom digal ko ji xamal ko ne ko natt yi jeex na nag yan yëpp tegg ko na léegi la jëfan yëpp def nga ko juróom jëm yëpp jot nga ci njëkk ak pay rek tees ak ko jant doon woote ñëpp na wax ni loolu ñu loolu ñu bëgg naa ko man sant la ci sama borom defal naa ci loo xam ne yow lu bëgg li ci moom yëpp lépp yëpp ci moom ko defal ci bisu boobu waaye que fii muy bisu mu jinni woon dem muy bisu fii bisu mu waxee lii yëpp mooy fi juróom ñett ci safara rek magal gi nag maa ngi koy sant képp képp ko ma ci santale bu soobee yàlla bi xam sama borom bi yaa ngi xaar ba ñu ci àjjana suñu borom a xam ne xam ne foofu ay leeral ci bis bi quoi ndax moo ëpp moo gën a leeral lépp ëpp ko waaye suñu borom bi bindoo xam ne bis bu ne ñu ngi teel dina bis bu waxtu bi nga xam ne bis baa ngi nii bis bu baax ba yàlla bu ñu jaajëlee dana ko beral ay teraanga rek fekk ko loo xam ne aljana baax baax baax ñi mbopp la moo moo kay ma ko defal moo xam ne loolee nga ko ko sant le mooy ne gis aljana yi xool sant benn bi ci loolee loolu la wax moom la wax ci bis bi ci ma ci ko yeesal ci ko fas yéene màggal bu baax màggal ji ñu waxoon ak wax ne dara ci ganaar bu ci gëneem lu ci waaye mën na ma ko yeesal ci bisu di sant ñi ñu mu leen ci yenn ganaar yi ci gëneem ndax dañu ko bañ guddaala guddaabu ak lu fës loo xam ne day jëm ko lu ak jëfraatu dafa naa ne rek la ci ganaar ba ci gëneem xëy boo ganaar ba ci gëneem lu ci waaye mën ci ay berne ak ci sant ma ko defal ci bisu kon xam nañ ne bisu

addi rasulillahi joxe ko sëñ Tuubaa jox sëñ Tuubaa addi sëñ Tuubaa sama yàllaan boobu maa ngi koy fàttali boobaa dama lay mën a ñaanal dama ko ñaanal ci xeeti nit yi ak jëriñoom yëpp ak yàgg fi maa ngi sant bu baax a baax tey fàttali fàttali bis boobu te ñaan yàlla yóbbuñu ci ak jàmm te def ko ni ñu ko digale màggal ci ñàng bal xam yi ak ñàng xëy bu ñu bu ñu wax tàmbali ko ñu ngaa weer semaine bi benn fan ci alternance ma ne ma nga ca ko ci tàmbali ba musiba ñëw rek ndax dañuy wax ne daan wax ne nañ ko gàttandu dalal ko gunge ko gàttandu gi mooy gis ba ko jëkkoon dalal gi mooy gis ba ci boppam gunge ko mooy ba ca topp te yëpp daanaka man ci ci ci weeru gàmm la ko daa wax ne ak ci ci ak gis boobu lu mu fànk fànk lu nekk rek daana gisante noonu gisum gàmm ak ak gis boobu nag mooy gisum bopp mi nga xam ne mooy nan nan nga ko defee noonu nii gàttandu gi ko tàmbalee ci bis bii rek wax njàngu alxuraan la mën ci njàngu alxuraan ñaan jëm jëm daal addiya sa naa bi ko defal addiya mu ci wax mu yoon suñu addiya bopp mu wax ko ci njàngu alxuraan mu ko tàmbalee bis ba bis ñu ñëw rek ba loolu la ñu napp bi sant bu baax a baax sant yàlla sama borom baax a baax sant cant yoo xam ne sant naa ko gën ko seede sama moroom jàngu te ñaan yàlla yàlla àggale ñu ñu yëpp jox nañu njëriñu barakatu ci ñu ñu yàcc ñu ci bëgg yàlla yàlla ñu bàcc bu ñu ci baax yàlla ñu fekk ci biir ci ñu di dama du ñu xaar la xalq ñu ci ñu ci am daa yi xat ko du wala du ak ñu ma te ma bi ñu ci ci xalimun yi ñu na wala du ma taara ahmada ma te ay yëgum bëkk tax ci réew wala awdu ahmadu wala awdu ma kaara ahmada ak sa ahmada awdu ñu du ahmada awdu fekk ya ñu fekk di leen leen suñu gisu go mu wax di du ak jam ak jam ga am ñu ñu ko gisu jam yàlla nañu jël bàyyi taw bi si yow. bu ñu defal def ci réew yi ak li ñu ci dig. yàlla nañu ci daje moom. ci seen jàng ñi. am ko ñoom. daal bi xëcc yi ko yàq ci réew mi rek mooy ñu ko yàq rek. ñu leen di yàq rek moom fu ñu ko yàqee de du ko yàqu. boo xam ne léegi. bu dee ñanaaw. jàngkat yi ñu laa koy déglu ko ñoom ñooy xam ne. ndox kay ndox ndox. ñooñu ñëpp dañuy am lu ci fekk. amiin ba tey. xam nga jiw sëñ Tuubaa bi ñoom ne. amiin ba tey di seet comme. amiin ba tey. gërëm ngeen ci lool. jërëjëf ba tey. dañ ñaan ñu mën a fekk leen. amiin ba tey. ñoom ñu daal di gis yow ngeen jëriñ ca ñaar bi. amiin ba tey. ñoom ñu ngi ko àndal ñëpp. amiin ba tey. ak benn ñëpp. benn ñëpp. ñoom ci loolu xamul dafa mën ko jaayee ku ne xam nañ loolu wax. ñaan mu jot ci ñaan wax ci ñoom. liggéey ñu ñu liggéey itam parce que ñu tabax ak daa yi tam ak a sam lépp ñu ngi ko seen tubaab wala ngi daje gaa foq fii xidma ci taw fii xaxaa def na amiin barke ñu ngi ne tamit sama sama liggéey yi def naa daje naa ci taw fii fii bind ak ñu ñu ngeen di ko joxit bari ji ñu ngeen ngeen daje ci la moo xam ci addiye ba ko ñu ngeen di addiye de barki da barki la mari ni dai ni ni ni ka dai ni ku ni ni ni da na ma ka ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni jëriñ way Sëriñ Saal sant war na ku ne sant nan leen tuuti tey nu way Sëriñ Saal sant war na ku ne sant nan Sëriñ Saal yëtu leen tuuti fi tey nu ay sëriñ saal sant war